xam ne ñooy waa GIGN ñoo ko teg loxo yéen kaay gi nee na bi ñu ñëwee ci këram ci cité góor gi miir bi la ñu bi ñu duggee ci kër gi daaj ji bi nga xam ne mooy buntu kër gi doo ko jàpp Ousmane Sonko doo ko yóbbu yéen kaay gi nee na procureur li nga xam ne moom lay tuumaal Ousmane Sonko mooy sàcc téléphone ba pare woote li nga xam ne mooy fitna maanaam vol de ak appel à l'insurrection loolee la procureur bi di toppee Ousmane Sonko ndax procureur bi Ousmane Sonko yéen kaay gi di Sud Quotidien ne ana Ousmane Sonko léefu na ko Ousmane Sonko jamono ji ma ngi ci bu weesoo sàcc téléphone gi ñu koy tuumal ak appel à l'insurrection bëri na yoo xam ne Ousmane Sonko defoon na ko ay jamono ci ginnaaw yooye yëpp jël nañu ko daal koy versé ci dossier bi yéen kaay gi di enquête xëy di ñu xibaar nañu ñi nga xam ne ñu yàpp seefa ñoom nag jamono ji dañoo mer futu woote nañu lu jëm ci wàllum résistance yéen kay gi nee na ñoom waa Pastef nee nañu Ousmane Sonko bi ñu ko jàpp dañu ko jàpp ak fitna maanaam dañu ko daal di brutaliser kay gi de la Tribune di ñu xibaar naa ñu jàpp gi nga xam ne jàpp nañu ko Ousmane Sonko lu bizarre la waaye lu reetaanlu la yéen kay gi de l'info di ñu xibaar naa ñu njiitul Pastef di Ousmane Sonko ma ngi ci loxol yoona waaye nag ni ki démb bëri ay bërëb yoo xam ne tàngoon na jër na ay manifestation yoo ko def ci biir réew yu bari yu fasanti ko yéen kay amoon na manifestation ca diwaanu Médina Wakaam Rufisque Kër Massar Ziguinchor Bignona journal bi nee na installation bu BRT bi gars yi dañu ko sax-saxee dañu ko sakaase yéen i kaay gi di la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu am na leneen lu yees loo xam ne jamono ji maanaam moom la ñuy toppee Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko bu weesoo mbiri Mame Mbaye Niang yi ñu ko doon toppee ak mbiri Adji Sarr jamono ji am na yeneen yu ñu toppee Ousmane Sonko journal bi nee na procureur dafa daal di santaane ñu ubbi ab enquête ci mbir ak mbir yu bare bari yoo xam ne moom la ñuy toppee Ousmane Sonko jàpp ne maanaam dafa jalgati yoon ak lu jëm ci wàllum kirim bokk na sax ci li nga xam ne moom la procureur bi wax ngir ñu ubbi si enquête Ousmane Sonko di expliqué nee na dafa demoon julli juma ba ñëw bi mu ñëwee la renseignement généraux yi nekk ci buntu këram daal koy filmer kenn ki ko filmer Ousmane Sonko dafa jël téléphone bi na ko ubbil téléphone bi supprimer li nga xam ne mooy image yi kookee nag daal takk der bi Sonko nee mu jël téléphone bi yéen a kaay gi de la a Quotidien yor yora nee na Ousmane Sonko fitna ak bu bi nga xam ne moom lañ koy def ci réew mi jamono ji jégg na da yokk lu jëm ci wàllum violence ak fitna ji nga xam ne moom lañ koy teg journal bii di Le Quotidien yor yora nee na démb bëri ci foo xam ne ci Sénégal tàngoon na jër yéen kay gi nee na ca diwaanu Médina ca diwaanu Cité Kër Góor gi ca diwaanu Parcelles Assainies sa diwaanu Kër Massar ca diwaanu diwaanu Bignona sa diwaanu Ziguinchor foofe di la lu jëm ci wàllum njaayum carburant de roues yi tere nañu circulation moto yi tamit tere nañu leen ko yéen i kaay gi di Le Quotidien xëy duñu xibaar ñu Ousmane Sonko nee na jamono ji na tay na damu na dee ci harcèlement bi nga xam ne moom la ko renseignement généraux yi di def yéen i kaay gi di laas askan wi ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a jàpp gi nga xam ne moom la ñu jàpp Ousmane Sonko ba pare di sàkku ñu daal di koy libéré ñoom tim sàkku nañu ñu libéré Ousmane Sonko ni mu gën a gaawee yéen i kaay journal bi na mu ko tuddee mooy na koo fekk ci xam ne maanaam moom la ñu gàll ci ndoddam ndax dossier bi ba muy tuulee la jëm ndax bëri na loo xam ne moom la ñu wax ne moom lañ ciy toppee Ousmane Sonko appel à l'insurrection lu jëm ci wàllum sàcc téléphone ak lu jëm ci wàllum crime yéen a kaay gi di L'Observateur nee na Sonko ma ci garde à waaye démb bi ko enquêteurs yi di laaj Ousmane Sonko dafa lànk ba sa naaj wa bañ a tontu ci laaj yi yéen a gi délibération xëy la l'observateur ne Sonko li ñu koy toppee bu dee moo ko def juróomi ati kaso ñaar fukki ati kaso mën na koo tëdd yéen kaay gi di bés ñu xëy fekk fa professeur Ndiak Fall mi nga xam ne ab pénaliste la xelam màcc jëm ci wàllum pénal daat nay wax ne képp koo xam ne toppee nañu la lu jëm ci wàllum contumace comme li ñu doon toppee Ousmane Sonko bu ñu ko tegee loxo atte bi nga xam ne atte woon ko ko ak daan yi nga xam ne moom jamono ji maanaam yi ñu tëjoon Ousmane Sonko màbbu na atte bi ñu ko atte woon ci lu jëm ci digganteem ak Adji Sarr loole lépp jeex na yéen kaay gi nee na avocat yi Ousmane Sonko lii nga xam ne moom la ñu jël ne Ousmane Sonko la ñu koy toppee loolee seen yëfu bopp la ndax ñoom nee nañu concerné wul Ousmane Sonko dañu ko bëgg a taafantaloo procureur bi tey ji dana def ab point de presse yéen kaay gi di évidence nee jàpp gi nga xam ne jàpp na Sénégal jamono yéenekaay gi de Les mi nga xam ne teg nañu ko loxo loolee tax na jamono ji njàqare ak tiis dugg na ci Ndakaaru ma ne la gis nga tiitaangi gu rëy jamono ji moom moo am li am ci journal bi de Les Échos nee na démb Ziguinchor ca Bignona bëri woon na ay manifestation bëri nay pëna yoo xam ne démb taal nañu ko yéenekaay gi di 24 heures bàyyi mbir moomee wax ci kuréel gi di SAMES muy ñoo xam ne dañuy yëngatu ci lu jëm ci wàllu wér gi yaram gi jamono ji mer nañu ba futo ndax nee nañu ci ab gerew la ñu jëm gerew boo xam ne dana toll ci fukki fan ak benn yéenekaay gi di Sud Quotidien Afrique Russie bi nga xam ne doon nañu ko amal njiitu réewum Russie di Poutine moom nag jël na ay dogal nee na nag dina jébbal Afrique lu jëm ci wàllum céréales yéenekaay gi de la sa Macky Sall démb yëkkati na ay kàddu nee na ñoom ñëwuñu fi maanaam ngir yalwaan yéenekaay gi di Vox Populi capitaine Traoré démb ca sommet Afrique Russie daat nay wax ne nan la Afrique maanaam amee lépp ngir mën a développer ngir mën a demal boppam ba pare ay njiitam di wër ci àdduna bi di tàllal loxo di ñaan loolee moo tax Macky Sall mu jëlee kàddu ko tontu ko na ñoom ñëwuñu ngir yalwaan